ma pare daw ndax mawdu bu xaw a jafe la mooy engagement wu mag ñi soo waxee engagement wu mag ñi ci Cheikh Ibrahim ci taalibe soo moytuwut ndaw bu amut xel mere la waaye dama dama bëggoon ñu may ma ma ma ma ma wax li ñu mag ñi rawee mooy sëriñ bi ñoom dañoo fekkee sëriñ bi abi hurayrata radiallahu anhu dafa wax ne suñu xol yi ma nga commencé feebar keroog ba ñuy raay xabru yónnante bi ba ñuy teggi rek la xol yi commencé feebar parce que dañ doon gis ñoom jëmm ja jeex ci jëmm jooju ma dellu ci alquran yàlla ne fa firru ilallahi suratu zariyaati inni lakum minhu nadirun mubin wala tajalu ma la ilahan aqara inni lakum minhu nadirun mubin ma déglu ko يلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ما دقلكو يلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما دقلكو يلا واتبع السبيل من أناب إليه من ديكوما وخجا ويكاد بني ما يصحب شيخا عارف المسالكي يحقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه ما دغلوكو مملني ملني داما دغول وخجا باينما الفرار الى الله والفرار الى كامل عصرك ما ملني دغوما وخجي مدير ديلو ما نك موم تيريم با نما فلست تخلص من الافات illaa bi cheikhin aarifa tuwaati foofu la problème bi nekk na ma ne nag kon xaaral ma toppi aaya yi mu wax ba firi ko yàlla moo ñu digal ñun ne daw leen jëm ci yàlla daw leen jëm ci yàlla te ñun ñu jàng ci alquran ne yàllaa ngi fune kon boo dawee jëm ci moom fooy jublu mu ngi fune te boo jàngee baay bañ ko laajee fan la yàlla nekk mu ne hadratul quds inda mahqin siwan mooy téere yu njëkk ya siwaahu mooy yu mujj yi laa siwan yaa man yarumu liqaahu bàyyi ne fa yàlla nekk bu nekkee nekkam googa am na mooy foo xam ne soo jógee jëm fa bàyyi ko fi nga jógee jaar ci fekk ko fa nga jëm do ko yow mi fa jëm kon ku jëm foofa nooy def mm. te yàlla ne daw leen la wax daw leen jëm ci yàlla problème ñëw daw leen jëm ci yàlla boobu yàlla mel ni ku ñuy uutal luñ demee mu ne xëy yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla kon gawar ñëw na te ut lu leen ca jottali kon ragal yàlla paas la lala ca jottali mooy la lay yóbbu alxuraan mu ñuy digal yoon yi yónnantu ñëw yàlla tegal ko ñetti yoon ne na gaa yi tànn benn ba mooy tënkal sa bopp ànd ak ñay tudd yàlla subaak ngoon te namu ca lu dul jëmi yàlla ji demal ci gaa yi ñuy zikkar ngay zikkar ñuy jaayu ngay jaayu man nga koy def téeméeri at nag doo bouger parce que xuduuru mun na la manqué bu nekkee doo am teewlu la baay di wax ca ruul adab teewlu pose ak isolé ñett yooyu bu nekkee mënoo koy téye ci sa bopp pour nga yegg dafay jafe ah ñu ne ah boobu dafa jafe alquran ñu ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yonent waxal nit ñi ne buñ bëggé yàlla buñ bëggé yalla nañ la top yow muhammad yalla bëggé len ca top muhammad te xamoko top muhammad te gisoko top muhammad te jangoko ko muhammad te mëno jeex ci da fay jafe yalla ne kon xaaral ma ñëw ci seen biir ne la wattabi sabila man anaba ilayya jaaral yoonu waji yar boppam jëm ci man noonu laa déggoon oustaz Baram Diom firi ba muy defal mag ñi conférence fii ci Sokone 1982 ca ancienne mairie ba yàlla ne toppal yooni ki yar boppam jëm ci man yàlla ki yar boppam fo fo fo jëmee ci yàlla rek la ñuy njëkk a wax mooy dof la moo tax doon wax ne ana cheikhul majanin voilà gannaaw dof la ñuy doon ki yar boppam jëm ci yàlla du geesu du deglu ken du bayyi xel ci ken mom fim jëm rek fim jëm rek lay dem dafa melni ni euh, baal leen ma ci waxin wi mbam xux momu gis lu mu war day tañax tañaxi rek bu buntu ba garewaay sax mu ngank ko sànni pour dugg boy jëm ci yalla nonu la legi nak bobu moñu ci xawa a yomb ñun top yoonu ku jëm ci yalla du wuñeku yow kon so wuñeku di nga yegg léegi nag kooku la ma sëriñ bi doon wax ne àndal ak sëriñ boo xam ne day xam soobuwaay yi dana la fegal ca yoon wa xalak tànge yi mooy yara wala gaañ ba doo yegg demal nga xëccoog loolu bu boobaa nag day doon sëriñ boo xam ne boo ko gisee rek mu fàttali la yàlla te day doon ku mun a yeggal jaam bi ci boromam kon tànnaloo nañ la sëriñ ku munut lii boo ko tànnee dafay nekk ak yow fii rek dama mos a dégg <laughs> Cheikh Mahi muy waxtaan mu ne bo bo dafa mel ni Cheikh Ibrahim Niass dafa mosoon a dajeek mag ñi duma wax yan mag ñuy waxtaan ci shariatu sharia dafa am ñetti ndox bii ndox dafa sobe munut togg munut lekk munut naan munut jàpp munut munut sangu mooy munut dara mooy ndox mu sobe bii ndox laab na waaye munta laabal mooy ndox mi njar nañ koo soow wala las ko lañ taq na ci wala diwlin nekk na ci wala xorom nañ ko mën na togg mën na sangu mën na njar waaye mënut jàpp moom ci boppam la yem bii ndox dafa lewet neex set xet gi soppeekuwut melo yu soppeekuwut cafka gi soppeekuwut mën na jàpp mën na sangu mën na togg mën na naan mën na set mën na setal boom set na mën na setal laa bëgg a wax bañ yegsee ca loolu nag bàyyi laaj leen question ndox yooyu mooy wan ñu firi ndox yi mooy leen mooy ñan ci ñun ci tarixa boobu ndox mooy ban ñu ne ndox nag tarixa amul ndox bàyyi ne ankay ndoxum tarixa mooy sëriñ sëriñ boo xam ne jàngul xamul dara mooy ndox mu sobe boo ko toppee yaag moom safara ngeen jëm ah dañ koy muñ demee loolooy dëgg de sëriñ boo xam ne yow xàmmewoo xaala wa maa xat bakum mm. sëriñ boo xam ne yow xaal xàmmewoo fial ak fail sëriñ boo xam ne yow mokkaloo sabi sama rabbi kaak suuf munoo firi xul onze bi rabbi naasi yaa aqi kooku xàmmewul baada qabla balaa nga koy topp dafa am sharia gu ne war a nekk ci moom dara new ci moom ci sharia far sax du ko jëfandikoo kooku bu la yóbboo ci xaqiqa euh, xariqu nuuri lay doon bàyyi mu ne matul imaam ana kon ki nekk ci lëndëm nag safar ñu ne effacer ñu ne ndox momu toural mu ne serigne bobu baxal moko tuddé bopam way du serigne këriñ la ñaarel ba moy ndox mi laab ci bopam te mënul la laabal set na dé bo ñëwé mën na la jangal ngeen and ci jakka jay julli di dem ci wasif di dem ci di dem ci di dem ci di dem ci di dem ci yu bax yépp mën ngeen ci and waye bu ngeen yegsee ci buntab yalla nak mom mën nay dugg waye daf naan la bo yoru ticket ah man ka <laughs> waaw dala la fa bàyyi de parce que moom ticketam rek la mën a garanti waaye sëriñ bi nga xam ne nag dafa doon ndox mu laab mën a laabal moom dafay jàpp ci sa loxo ne la haa anta wa rabbuk yaa ngoog sa borom a ngoog su lay bàyyi sa loxo ba rek nga weddi sax ne moom amut moom ngay njëkk a yow diw nga ne amut bàyyi nga ne amut kooku nag mooy sëriñ bi mu lay wax yuzakkiruhu llahu iza raahu wa yusilul abdu ila mawlaahu boo koy gis rek ku yàlla te moom daf lay jottali ca yàlla ñu ne kooku fu mu nekk bàyyi na mooy ko kaamilu mooy kaamilu kaamilul asri bàyyi dellu ca aaya ba ne la daw jëm ci yàlla mooy dem daw jëm ci aji mate sa jamono ah, kooku moom duñ ci dugg ndax nit ñëpp xam nañ koy aji mate jamono déglul nag jullit yëpp la bàyyi di waxat mu ne mënuloo mucc mukk ci gàkk-gàkk yeeg gaaf yeeg gaar-gaar yi lu dul danga xam sëriñ boo xam ne dafa xam yooyu fa ñuy jóge yooyu fa ñuy jóge sëriñ ba daf koy xam mu ne kon jàpp leen ci dogug sëriñ si su ngeen buggee am texe gu lëw mu ne waaye nag man Cheikh Ibrahim maa ngi yëgal ñëpp ne ki gën ci sëriñ si jamono ba jamonoy jeex mooy suñu njiit loolu te kenn du ci weranteek man mooy cheikhu ahmad bun mahamad a tijaani baay moom loolu la wax xaw ma nag man lu ma wax waaye baay moom loolu la wax léegi nag question bi mooy sëriñ boobu mu ñuy wax fan la nekk loolu moo xaw a jafe ki xam euh, tuwaat yi ki la mun a sellal ba gàkk-gàkk yooyu dañ ci yow te gàkk-gàkk yooyu duy nekk ci jëmm ji ca xol ba lay nekk ak ruuxu wa moo tax baay ba muy bind à de de 21 ans wali bani ihda wa isrina sanna maasiratan maqbulatan mustahsana mu ngi wan ni ñi ne man 21 ans la am ruuhul adab la bind mooy nu ñuy def ba yar ruuhu ndax ruuhu moo jokkoog yàlla bam demee ba mat sëkk nga xam ne dafay takkaat bagaasam yi pour toxu feneen mu bind sayrul xal bi doxal xol mu jëm ci yàlla ku doy waar mm. ku doy waar la léegi sëriñ boobu la ñuy seeti ñun ñu dellu ci ruhul adab boobu nga xam ne mu ngi ko bind à l'âge de 21 ans ne ko mu jàngal ñu sëriñ bi mu ne watlub murabbiyan xabiran naasihan kaamila irfanin wala kaamila irfani imaman salihan malikhu nafsaka fala tudabbiri wala wala la fala tudabbiri wa kun ka mayitin dawaman tuxbiri wala tuxaalifu walaw baana fasadu ra'yi فكن دواما ذا اتساع لا تلت من فقطع لشيقي أقوم وأليق من المريد عند من أقل لا تلتفت لغيره في العالم فكن كما لو كنت دون عالم وكن مع الشيخ دواما تربه وكن محبا وامقا فتفلح بقدر ما تحبه ينال أمداده فالقوم هذا قالوا أنفق طريفا تالدا في طلب رداه بادر إن أشار تصيب ورد الشيخ ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك واي بيت بما يوخنك gune yi jànguñ ko ndax ca nusqa ya mag ña jàngoon la nekk xaw ma lu tax ñu génne ko ci ruhul adab ndax dafa ne inama cheyqu yasaahi mada dahr hayyun faqihun faani waaye nekku ci téere yu beesi nag xaw ma lu tax ñu génnee ko ca gis nga li may firi noonu su nekkee firee naa ko ni ko bàyyi waxee ku nekk ci ñun mun na jóg rek jàpp ci loxo paa boobu ànd ak moom këram donte doo ko gis nii bàyyi dafa wax ne sooy ut sëriñ utal yarkat yarkat mooy ku yaru faaxulu shay laa yotti soo amul éducation mënoo éduquer da am yar pour nga yare da ngay am ku ku ku am expérience ku yeew ci nit ñi xam nit kii dañ koy bës kii dañ koy njett kii dañ koy dóor kii dañ koy kii dañ koy ku ci nekk fa muy jaar ak yow daf koy xam mais ku xam yàlla xam gu mat bariwul man moom ma ci ku xam shariatu ba mat imaam problème bi foofu la nekk. Mhm. léegi ku la neex muy sa sëriñ ah, ndegam mun na filo filo def na filo boo ñëwee mu naan la oto bi bu tànk bi yëkkate ko nga gis yàlla ci suuf bu mbaar mi tafee nii nga ta mais dañ lay nax loolu du maarifatu loolu ay xelaat yu rëy la dañuy dox bàyyi dox suñ bopp dañuy nax rek day doon koo xam ne dafay doon ku sell dafay doon ku sell koo xam ne boo ñëwee laajte ko ci koñ bi kenn du la joxoñ baaraam ci moom bàyyi na boo gisee kooku nag waaye <laughs> moom gisoon nañ kooku ndax kii ma wax moom yëpp a ngi ci bàyyi wala mu raw sax ñim ne ci ñoom boo ko gisee maliku nafsaka may ko sa bopp bul analyser bul seetantal lii mu def noonu la wala du noonu sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci yow daal déglu ko mu wax nga def mu tere nga bàyyi Euh, emul ak yow foofu bàyyi mu ne melal ni niw bu ñuy sang kenn musul fii sang niw sotti ko ndox mooy la tàng na wala sedd na wala mooy la bul ma gaañ wala bul yëkkati suma loxo bi wala mooy la bul sumi suma tubéy ji wala nangam sangam niw yoonam nekkul ci li ngay def loo ko def loo mu def ko mu ngi des ci yow mi koy sang noonu la taalibe war a mel ci loxo ab sëriñam ndéem sëriñ ba matee na taxawaay yi bàyyi wax kon léegi nga dégg mag ñi ñoom bàyyi mu ne boo gisee kooku jox ko sa bopp melal ni niw mais sax bu juumee sax njuum njuumteem gi moo gën a jub sa dëgg gi yow ci ñi am xel xam nga lu tax mooy moom dafa juum ci lu xam su ngeen demee tuuti mu mu jubbanti yow da wax dëgg ci loo xamut suñ demee tuuti nga réer ndax dëgg nga ji bul uuteeg moom doonte dafa gisee neneen noo xam ne teguwut ci yoon fu garaaw ngi noonu nga xam ne tey saay-saay yëpp dañ ciy dugg di ci def luñ ko leen santul dama dama mës a wax ak benn nit ci ci bayti yi Ibrahima mu ne ma da ngeen ñu bëgg a sonal mais Baye moo wax ne taalibe bi bu mu mës a uuteeg sëriñ bi donte sëriñ bi dafa juum mu wax dëgg na topp juumi sëriñ bi mu ne ma loolu yéen da ngeen bëgg a añaane nit ñi ci yi ñuy def mais daganal na nala sax soxna sii du sa jabar mais bu bañut sañu da bañ lula neex def ko ci mom manako da nga degu téré bi manako téré bi baye dafa wax ci commencement yi téré ba teel a layal téré bi ne la euh tariq mahd fadl wa ridwan ussisa bis sunnati wal furqani téré bi dafa selli may selli ngeenel ndax alquran ak hadith ak ko sos alquran mo xaraamal li nga wax hadith mo xaraamal li nga wax ko jaratu mu ci dugat wala déet téré bi dañ ko teel couvrir Cheikh Ibrahima Niass la mooy wax mooy wax mu ne njuumte sëriñ bee gën a jub dëggi taalibe bi Cheikhu Tidiane radiallahu anhu dafa sóob ñaari taalibe yëkkati njëmbati tamaate jox leen ne su ngeen demee sampee leen ko nii mooy xob yi ngay samp reen yi nekk ci kaw xam ngeen yéen ñëpp ne loolu duñ koy jëmbatee sooy sooy joxe gannaaw ngelaw li ëpp xob yi mu mu wow biñ génnee kenn ki reen moroom ki <laughs> sëriñ bi juum na de mu ne ko lu mu wax mu ne ko ah mu ne ñu samp xob yi ren nekk ci ko mu ne ko te du loolu la ah, man de loolu def mu ne ko yow moom na nga dof doo ko defee sa tamaate ji day wow ñu dem moom mi jàpp na sëriñ bi dafa jum mu samp reeni kele jàpp na sëriñ bi li mu wax mooy li sëriñ bi wax rek moom samp xob ya ñu dem ñibi juróomi fan ñu dellu si wër si seen tool ya ka sampoon reen ya nam war a sampoo fekk yëpp wow ka sampoon xob ya la ko sëriñ bi digal fekk yëpp meññ bàyyi mu ne faqata un li cheikhi aqwamu al yaqu wa al yaqu min al muridi inda man aqal borom xel yi la bàyyi di waxat foofu maa ngi ci sëriñ boobu bàyyi mu ne bul geesu jëm ci keneen ci àddina melal ni yow yaag moom rek a nekk ci àddina bul gis keneen waaye nag la mag ñi neewoon nag bàyyi egsi na ci ne nekkal ak sëriñ bi ci li ëpp ci say waxtu ndax pet sax la bàyyi wax bëgg ko mbëggeel gu amul dayo gis nga bàyyi mag ñi àndoon ak moom ba muy ñaan dafa wan yàlla ne ko wax wax ko ne may leen lii de dafa wax yàlla ne ko ñii ñoo def lii kon eyoo nañ lii baaxu nufuusa sàmm wal amwaala kal muminina habbaza ahwaala ne ko gis nga ñiima nekkal jaay nañ seen bakkan ak seen alal ni ña àndoon ak yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na ndaw xaal yu baax léegi dañuy uutee baay waaye joxatuñ baay dañuy uutee baay di nax ti ñi di voilà <laughs> dama mos a am suma benn xarit mu dem Nigéria eh, ku neex baat la nag mun a wëy mën yëfi sax bi mu demee rek mu mu mu ne mu ne doomi baay la sax siya bi nag dafa gudd ponkal ñuul waaw waaye moom dafa ñaaw mu ne doomi baay la mu ne ma aw ma une semaine maa ngi yore cinq millions suma poos mu ñëw nag di def daayira ci benn kër kër gii muy def daayira bi Hajja Seyda Mariam ñëw Nigéria dal ci kër gi taxaaloo ak moom léegi borom kër gi dem wax ko Seyda Mariam eko ko sa benn rakk sax nga fi mu ngi fiy def sax tey daayira mu ne ko suma rakk bi nu mu tudd mu wax ko ko Seyda Mariam ne ko non bàyyi amul doom ju tuddut Muhammad <laughs> problème ñëw na Seyda Mariam ne ko baax na naa yegg si ci daayira bi léegi borom kër gi ñëw ne ko ah Seyda Mariam sax mu ngi ci kër gii nga taxalaateen mu ngi dégg si kër si nee na fi egg si sax mu ne ko Seyda Mariam man mu ne ko Seyda Mariam Ñas mu ne moom mu ne ko Seyda Mariam Ñas li mokkaloon yëpp réer a ndax tiit mu ne moom mujj gi bàyyi na woo yëpp sëgg ci laa ilaha illa rek te xam ne <laughs> mu ne ko Mariam ne ñu xëy <laughs> yegg si ci géew mu ne oh waaye mu ne moom bi muy jógee Nigéria di ñibbisi si Gàmbi bi muy wàcc ci aéroport yi Gàmbi cinq mille francs la dese ci xaalis oh. xamut lu lekk xaalisam jamono oh. jamono yi la ah. <laughs> ah. nga xool nag fi mu ne nit ñi euh, nit ñemee baay ak ñeme ku doy waar mag ñi daañu xool baay ñun taari baay coloom yi mais mag ñi daanuñ ko xool mag daal daanu nax soo bëggoon a lekk sedd ci bàyyi ngay lekk sedd sama na ma sëñ daara badu boobu bu gaaree waat oto bi ñëwal rek romb ko rek sikar sikar su neex danga bugg a gàmmu ji moom loolu rek la ci xam moom nga ne waaw xanaa amoo paas ba de ah man kay amoo paas duggal dawal solu ji ñëw jeex na ndax sikar su neex si nga zikar rek zikara rek mu neex nga romb ko xam nga wax naa la ne baaxul nufusa jaayoon nañ seen bakkan ka ko fekkee moo ma nettali keroog ba bàyyi di dem ca yoon wa moo doon jiite zikar sa bàyyi dem ci dëkk dëkk ba tas na ci diina ndax ku fa noddu dee bàyyi dem tuubalaat leen rëddaat jàkka ja ne noddal Bubakar mu naa mu ne ko noddal te Boubacar xam na ne fii ku fi noddu dee Boubacar ne ko bàyyi fii dëkk sangam la mu ko noddal mu taxaw teg loxom ci noppam ne allahu akbar allahu akbar balaa may noddu dinaa bàttale <laughs> waaw mais mag ñi faale wu ñoon loolu ndegam bàyyi na ko noddal dafa nodd tusubaar ga jeex mu toog snede nit ñi gis ne deewut jot ka dëkk ca dëkk ba moo ñëw ne bàyyi ndax ma noddu bàyyi na ko noddal mu noddu xaarul Boubacar jël noddu ga parce que xam na ne kii dafa garanti yaqiin moo tax bàyyi ne yàlla baaxul nufuusa sàmm wal amwaal mhm. ñi dañoo jaay bakkan a jaay ale kal muminina habaza ahwaala muminina mooy ña àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun xaw ma fuñ jëm ñun am nañ daraa yu rëy mën nañuy waaye bu oh. bàyyi ootee na fi mu ne buñ fi defoon tooli baay day booy fii bu amoon tooli baay fi mu ne day booy ndax boo ootee xadara weer sax par weer duñ mat ñeent fukk bokkuñ ci kal muminina habaza ahwala hmm. léegi nag bàyyi nag déglu na ñëpp ñu wax sëriñ bàyyi ne non man de ci man sëriñ ci man daal moy ko xamne da fay xam fiq day dund bo waxe day dund ñu fo ne ñi de bokkuñ ci no dund bi ma doon wax ci suba la matu wa ma mata minhum khayru hissihim fi alamil lhissi fal ahya fal fal arwah ahya xam nga wax joju de nañ waye la de ci ñom du li de ci de bi jeex la de ci ñom moy gis ak dajeek laalanteeg waxtaan waaye ñoom ñu ngi fi bàyyi mu ne sëriñ dëgg-dëgg day dund day xam fiqu day jeex ci yàlla day jeex ci yàlla kooku nag buñ ko dégloo mu indil ñu sëriñ boobu ñetti sëriñ moo am cheikhu taalim seyxu tarbiya beneen bi mooy ban seyxu tarqiya seyxu tarqiya kii da lay jàngal kii da lay yar kii da lay yëgal nga dem ca pays yàlla ya di sàmbandaayu ndaxam loolu nag àddina ñi fi jaar ñépp am nañ ko waaye sang bi sallallahu alayhi wasallam moom xam nga moom dafa juutal affaire bi ñun da ngay ñëw sharia tariqa dem haqiqa moom dafa def haqiqa def tariqa door dem sharia moom seyqu taalimam mooy jibril moom ka ko doon jàngal moo raw ndax jibril bu ñëwee di bëgg a wax mu bu koy raw yàlla na ko dalal sëriñ sëriñ la laa tuharik bi lisaanaka li taajala bi inna alayna jamu wa qur'ana fa iza qarana fa tabi qur'ana summa inna alayna bayana mu noppi waaye li jibril di wax yëpp xam na ko kooku mooy sëriñam ci njàngal waaye seyqu tarbiyaam nag mooy yàlla moom addabani rabbi fa ahsana tadibi moo ko wax di yàlla ma yar yar bu gën a rafet waaye sayqu tarqiyaam nag mooy yàlla bàyyi ñu ko wax taraqaa ruqiyan mustahilan li xayrihi danaa fatadala nii la xayra xayra xabaayi xibaayi afan mu ne yéeg na yéeg goo xam ne jomb na ku dul moom sallallahu alayhi wa jege na yàlla jege goo xam ne mooy ëpp ci may yi parce que kenn du jege te yàlla noonu moo tax ca ca nuurul basar mu ne la fi fillahi aynun wa kayfun wa zamanun amri wa yustihaali kenn du jege yàlla noonu ndax yàlla amul bërëb amul jamono kon noo koy jege amut bërëb amul jamono nekkul ci bërëb nekkul ci jamono yàlla romb na loolu kon jege ka ay dégg la bàyyi wax na yónnante bi yàlla mooy seyxu tarqiyaam ndax ca tarqiya googu mu wax la aynin wa suuratin wa kullun siwa ba gaa di werante gis na yàlla am gisut yàlla bàyyi na gis na yàlla ci dëgg-dëgg nag yàlla la gis ci jëmm ak ci melo mu ne leneen lu dul lool nag mu ngi ca gannaaw gannaaw booba mu ngi am ku muy junju man ñemewuma koy wax kooku mooy yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am sëriñ moom ridal amin sayid muhammad bun xamut tijaani moo ko jàngal al alquran ak sayid isa bun bu kaas ñoom ñoo ko jàngal ñoom lañ xam ci sëriñam ñu ko jàngal waaye moom seyqu tarbiyaam dañ bëri te kenn réussitu ci moom Cheikh Tidiane am na lu ma téeméeri sëriñ ñeen fukki sëriñ nangami sëriñ waaye daal li gàtt gàtt bi mooy sëriñ bu mu mës a dégg rek dem na ngacc la ba nga jeex mu jàll parce que amoo li ko mën a màndi kon boo ko déggee da ngay wax ne jaar na ci ñu bari mais seequ tarbiyaam dëgg-dëgg mooy saydil wujudi wa alami shuhud ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne da kullu suyuquka wa kullu suyuquka wa dhar ana cheikhuka wa murabbika al abar bàyyil ñëpp kenn motul la ci sëriñ man maay sa wayjur te maay sa sëriñ bi mat maay sa sëriñ bi baax moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu bi mu ñuy leeralal wax ji mu ne yónnant moo wax Cheikhu Tidiane ne ko wa mahma mu ne mu ne Cheikhu Tidiane wa mahma raa wirdan talaqana musri'an wa in lam yajid ribhan fa zaka yuhmalu fo naa jaamiu la wa qad taraka al awrada turran bi asriha bi idni rasulillahi wa huwa al mukammilu jeex na mu ne Cheikhu Tidiane fu mu mës a dégg ab sëriñ bu am ab tarixa buy egsi rek jël na wirda wa commencé ci góor-góorlu waaye bu ci gisul lam soxla rek dal di bàyyi parce que moom fam toll woon doon sëriñam dafa jafe mu ne bàyyi na wiir yi yépp nam leen jëlee woon waaye loolu nag mu ko jëlee ci ndigali yónnant bi nga xam ne mooy ki mat ki ko mun a war a jox wirda wu mat moo tax mu ne qaala taaha lam yabqa lil gayri man nun gayra annii ala yadaya alxibaau fatrukan عنك كل أذكار قوم هاك وردي إني علي رجع دنجلي سرين بي <laughs> دب ما يجاخسي Oh. <laughs> jërëjëf dama bugg a taxañ li may taxañ balaa sëriñ bi yegg bu ñëwee dootuma ñemee wax ndax yàq baat yu bari yi Ibrahima ngi defar rek mu ne yónnant moo wax Seexu tiijaan ne ko li ngay ut mun kenn munut la koy jox am man maa ko yor jëlal te li ngay yaakaar ci suma wirde wi la nekk moo tax bàyyi seede ne له ورد من المولى سماء لكل آه، من الهادي سماء لكل اورادي لأفراد وأشياق فهذا الورد أقناني ديسان ويقول في النخ واو واو كوكو ما يفهم مدوه شيخ أوراد من موجي ورد وخمنه تيالا لجوجي مو تيم بولم وردي moo xam ci ñenn ñenn ñi la wala ci sëriñ si mu ne man nag boobu wird moo ma convaincre bàyyi nee na wird moo ko doy mooy wird daaw Cheikhu Tidiane te pourtant bi nit ñi di wax ay bidaa ak ay nangam nangam dañuy tudd dañu mu ne non fa lay safil wird zikru Cheikhu xayrihi non wird bi du ci tudd Cheikhu Tidiane yàlla lañ ci tudd ak yónnant bi sallallahu alayhi wa sallam astaghfirullah yàllaa ko moom laa ilaha illallah yàllaa ko moom allahumma salli ala sayyidina muhammadin yónnantee ko moom jeex na ku wirda leneen na ma wax yaa Cheikhu Tidiane dañ koy wirda duñ koy wirda ñun Cheikhu tiijaan moomu nag lii la ko yónnantu jox mooy sëriñam ci tarbiya mooy sëriñam ci tarqiya Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne moom moo moomoon taalibe yu mag yi liste bee ngeen gis ñeneen nang ci biir te tuddaguñ leen photo yu rafet yee mag ñu leer ñu baax ñu baax ñii àndoon ak paa ba ci liggéey bi Euh, dafa am lu Cheikh wax ci bëccëg mu neex ma lool mag ñooñu ña ca ëppale woon paa buuba xaalis ña ko ci ëppoon xam-xam ña ko ci ëppoon mbooloo mosoo ko xam ci ñoom parce que ndigali baay mooy topp leen Boubacar loolu mooy taalibe Boubacar it su àndoon ak ñoom doo xam ne mooy njiit ndax li ñu war a def ñoom ñëpp moom moo leen koy jéem a defal doon seen taalibe ndax li ko bàyyi jiital ndax dégg ngeen wax ji noonu saxaaba yonent bi doon àndee noonu la mag ngi doon àndee ak baay kenn ku ci nekk danga foog ne li nga yor sa moroom a ko gën a eeyoo ridwanullahi taala alayhim ajmain baay seyqu taalimam mooy maam alaaji abdullahi ñes loolu moom yëpp xam nañ ah masta jóg baayam te rawti lislaam benn sëriñ mënu fee wax ne dem na daaraam bu kañaan amunoon amuloon loolu moo na aj daaw léegi ma pare sax ah sëriñ bi yegsi hmm. na na na noppi ba sëriñ bi toog am Aliou. الله الله الله لا إله إلا الله Allah, dai dai la la, Allah, dai dai la jërë ngeen jëf ñu ngi tatagal Maulana Cheikh Mouhamad Taha ak rakkam Seydi Baye Alhaaj sëriñ bi yaa ngi ñu fekk ñu ngi jaxase xeli nit ñi doon wax ci engagement wu mag ñi waaye dugal ci sax lu ci bokkul ba toll ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass ñetti sëriñ yooyu ndem am na ko ñan lañ jàpp benn bi moom bu ma ko waxee dina wër mooy maam alaajee ko jàngal bàyyi ñëpp dégg nañ ko mu wax ne maam alaajee ko jàngal mais ma indi woy woowu waa ji wax ne mësta jóg kër baayam te raw ci islaam benn sëriñ mënu fee wax ne dem na daaraam loolu moom wér na ku nekk mën nga dégg nu ni jaar na ci diw jaar na ci diw jaar na ci diw waaye bàyyi kenn mosu koy tëralal dars kulu kudut maam alaaji kon kooku moom mooy seexu taalimam dina ñuy wax nag ne Abdoulaye Waladul Haaj <laughs> mooy seexu tarbiyaam ndax seen tëju boobu ci guddi googu waaye bàyyi romb na foofu bàyyi seexu tarbiyaam mooy seexu tijaan ndax moom rek la topp di ko wax fasayqi fasayqi fasayqi fasayqi fasayqi sayqi bàyyi jàngal na taalibe ak sëriñ ba mag ñim àndaloon mokkaloon loolu ba koo ci mës a gis bàyyi ngay gis waxoon na ba mu ànd ak cheikhu Tidiane ne mahaqat zaatu shayqi zaati wa awsaafun lahu awsaafi fa kulli adim billahi moo ko wax

waaw léegi na ngeen may ma ma taxañ ndax ki ñu war a déglu yegsi na su ko defee léeb yi dafay dootul neex mu ne jëmmi seexu tiijaan far na sama jëmm jëmmu seexu tiijaan melo seexu tijaan far na suma melo man suma lëpp dem na suma lëcc suma lëpp dëñ na kon seexa fi nekk fi mu ne mu ne waaye nag maay soppe boobu saa suma jeexee ci moom te loolu laa doon uut mune way waaye tidiane waxon nag nañ ko ne génnal ku la gis texe bam ne tël suma bop la gis baye wax fatabada mune pel qutbul faridu qutbu kay kenn kenn ñaareelu luko arahuma diko gis ayna ayni muy jëmmi sama jëmm fële mune labisan muy aji sol surati melo sama mune wa zaaka haqqun samimu li deug ju dog boy boy oh baye ma dem jërëjëf jërëjëf bàyyi ma ma taxañ moo tax dégg naa sëriñ bi ci ci suba bi ñuy tëj kaamil bi mu ne bàyyi wax na ne Seexu Tijaan wala yu faariqu nii lahwa xëfa xippi man ak Seexu Tijaan duñ ko teqale ko xëfa xippi man ak Seexu Tijaan duñ ko teqale ko lahza sax ñu noo ko firee noonu mais lahza moo gën a gaaw seconde bàyyi bu ma waxee seexu tijaan nit ñi foo ne damay noppi mais bàyyi seexu tarxiyaam nag yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam dëgg yàlla nag yonent bi mooy seexu ti mooy seexu tarxiyaam boo demee ci sayrul qalbi téeréem boobu nga xam ne booba na sëkk ba motti mu nga naan fa qalbi inda ahmada la ura amilu ilal axyaari baada baqaayi asiru bihi lillahi jalla jalaaluhu wa fustu bi jamin tam tamma fanaay yonent la wax ma sëpp suma ber ngende ci bunti kër yonant ca ahmad kenn dootuma gis maay wàññeekoo kam ka kam motteeku te xas naa jeex man su ma desee dootuma fa jóge mooy bu ma egsee ci yonent bi dootuma fa jóge du ma demaat foo xamee ma fay jeexee du ma demaat foo xamee dama fay manqué fi ma matee ba motti fa lay toog kooku mooy yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye bu may dem ci yàlla ci moom lay jaar moo tax tonowu naa ci boole lépp muy lenn keroog ba ma jeexee ba su ma jeex matee wax na yu gën a xóot yooyu sallallahu alayhi radiyallahu anhu mu wax ci yónnant boobu ba yónnantay séddale ñam tarbiya mu gis ne moo ci raw bàyyi na safaa li waxti والحبيب يقصص واني محبوب لطه مقصص تهاجني ngi ni sama wet wa in dahisal aqtaabu yowman bi رأيت رسول الله نص بأنني سفير له في الكائنات مقلص رضي الله عنه باي من سماي وقت سيلنا لوتاخ ما جيل بيتي بوبو دينا سي نيو سيرن بي سانغ با سوبي با مو ngay sédalé mu ngay jaglé mu ne waaye man may soppe bi nga xam ne maa sopp taaha moo tax man lay jagle mu ne man samay wax bu bu bu xam-xam yi bu yi ponkal yi yëpp dajaloo ci ab bërëb ñoom ñëpp ñu gëlëmaan ci pays yàlla yi dinañ ma gis ma omat leen ñoom ñëpp ma musalle kon dafa raw ci ñi yónnante bi doxal bu kenn ne xanaa saxaaba raw moom raw la rek mu ne maa gis yónnant mu signé décret ne ma yaay suma ambassadeur ci lépp lu yàlla bind <laughs> allahu akbar faka an nii xam nga ca tukki ma li ma doon ut mu ngi ñëw bu ma nee mooy seyxu tarxiyaam bàyyi dafa mosoon a wax benn bés ne ci jàkkaarloo daje naa ak yonent bi maay yéeg di dem ci pays yàlla ya bi may génn àddina di dem feneen ba muy wuññeeku nag laa soxla man mu ne fakka an بريد السر كأني بريد السر للكل قاذفا ها بوقت هبوطي مثل وقت عروجي بوقت هبوطي مثل وقت عروجي كون باي بو ماني يونتاي شيخ تر تر قيام من ناكو ديغ من من تلقاه مني كل روح مجرد صفا وقتهم من فوف لا سخلون والامر غير مريج نون لا Baye dafa wax ci boppam ne man samay waxtu yëpp dafa sell maa fekkee Cheikh Mouhamadul Mahi mu ne ñaar rek laa mas a dégg ñu wax loolu safaa waxti safaa waxti samay waxtu yëpp a sell léegi nag yow sa xel mooy dem waaye samay waxtu yëpp a sell Baye mu ne man ma yeyoo mbóot mi ay mbóot mi maa koy séddale maa koy wisaare ñëpp xoolal ku wiccaxu rek ci mu mel ni waxtu ba may éeg ak waxtu wi may wàcc mu ne waaye nag ña ko dëkkandu jële ci man mooy ruuxu mujarrad ya ruux yi rafle ci lépp lu dul yàlla aarif yi la taalibe yi la mu ne ñooña nag safa waxtu seeni waxtu sell na gis nga li ñu baay seedeel ci yonant bi nee na taalibe yooyu mel noonu seeni waxtu sell na te mbir mi dara lëntul ci nag yaa axi ñu ne ko lu ko may taalibe yooyu bàyyi mu ne fa asqaytuhum nahlan wa allan lam widaadahu wa balha mudaamal gaafiliina xaqiiraa sukaaraa bila ismin wa xawlin fa yaa lahum safa waxtuhum wal mulku kaana kabiira bi maqcadi siddiqin jaliisiina jaliisuhum maliku jumuul malikina qadira yasiruuna sayran fi lmajalisi fa ajaban li sayri julusin yusbihuuna suqura lam ca teg mokkalu ma ko baay moo leen nàndal baay moo leen nàndal lim leen nàndal ba ñoom ñu génn ci càggante te baay wax na ci benn lettre ne njuumte bi gën a rëy njuba digi gëna reuy ñak solo gëna reuy moy rëy mooy dal moy daal bi gattal gattal gattal mu ne mag mandi nañ te duñ am bàkkaar te sangar siñ naan mo gëna a gëna for sangar si nek fi adina te ñom mandi nañ ko naan nañ ko te duñ am bàkkaar duñ xañañi tamit mu ne parce que seeni waxtu dafa xass sel nguur rek ñoñu ca maqadu siddiqin inda malikin muqtadir foofa la ñuy toog ñoom fa la ñu nekk moo tax da leen di gis ñu way ni ay doj fekk na ñu ngi dox ni nuage di doxee ay mag ñi waay yàlla nañu leen yàlla fayal xam nga lu leen may loolu mooy ñoom déggoon nañ bàyyi wax ndax xam ñun dégg nañ bàyyi wax <laughs> waaleykum بأعلاء الهمة في طلب زيادة لله ظاهرا وباطنا في كل ساعة وبرهة لأن من كان في حضرة تقول دائما ولدينا مزيد عليه أن يطلبه أن يطلبه باي موني وارنا تيين نجين يوكو غور غور yokk سيني إتي تي ساكو itte ci sàkku ndollent ci li nëbbu ak li wax mu ne ci benn ci ci ci waxtu wu nekk ak benn yëg-yëg bu ne mu ne ndax ku nekk ci pays boo xam ne fu mu toll mu ngi naan maa ngeeg ndollent maa ngeeg ndollent maa ngeeg ndollent war nga ut ndollent waaye xam nga kii ut ndollent mooy ki foog ne dafar ki doylu du ut ndollent ndax man dégg naa fi benn gone bu yàggul mu wax rek moom moo gën a dégg bàyyi alxuraan ak a mun a kàcc bàyyi wax li mu wax ci alquran ba pare mu ne moo gën a dégg bàyyi alquran te kat li nga koy gis noonu du xaafis de alors ah du xaafis tamit tayar la Lamine Thiam baal ma tekkiwul ne tayar xamul dara <laughs> grand tayar gis nga jamono ñu bugg a sànq ki nga xam ne jàpp na ne moom moo raw bàyyi kan du ut ci bàyyi ndollent ay ku raw bàyyi xaw ma foo jëm. Hmm? bàyyi mu ne ku nekk ci pays boo xam ne euh, président yi Mauritanie boobu ñu coup d'état nu mu tuddee Cheikh Taha. Cheikh ab Cheikh Abdoulaye Cheikh Ould Cheikh Abdoulaye xam nga moom papaam taalibe Baye. papaam moom bi mu ñëwee ci Baye wala day naa masjid la yóbbaale wala day naa masjid bi daal nekk ci noppam bi rek ba mu dellu si waat waaye am na masjid nag <laughs> xam na ne Baye mu ngeeg masjid Baye mu ne ku nekk ci pays boo xam ne masjid da nga fa waaye te ngaa un dool leen te bañ a nekk fii ne doylu nga te amoo dara. di doylu te amo dara mom lolu gàtt xel la ñooñu ñooy saadatul malamitiya la naddai daawa wala maziya kullu zi hirfatin fi hirfatihi fa buba chauffeur la won yore otoom di dawal di dawal di dawal ba mu gi muy dawal nit ñi di len yobu ci yàlla auto la doon dawal di yobu nit ñi medina mu gi bàyyi jox ko ndigal muy dawal nit ñi di leen dawal di leen dawal bañ na tàcc ca yàlla yàlla ne wa inna ila rabbikal muntaha fii la dem em ñee ay tailleur la ñoon di daggate piis yi di leen ñaw di leen ñaw di daggate nit di ko jokkulante di ko jokkulante ba mu taxaw doon jëmm joo xam ne dootul wax ne maay diw may doomi diw ak diw day ne maay yàlla ñële ay maçon la ñu di dajale nit ki def ko ay birig di ko tabax di ko tabax ba mu doon bâtiment bu taxaw temm ne maay yàlla loolu mooy saadatul malamitiya métier mi teew leena def li nga xam ne mooy yeggale nit ki ci yàlla teew leen a topp ki ñu topp bi war ci moom ridwan lahi taala alayhim ajmain baay waxoon na Seyd Ali Cissé ne ko deema bindal turi ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu ci xitma ma ma di leen jagleel ay ñaan allah kon déggal nag wax ji boobu xoolal mag ñi liñ amoon dangay toog gis mag moo xam ne këram ña fa nekk mat na ñaar fukk ak juróom amut benn salaire as tool lay béy ñaar fukki joxi dugub juróom benn mbaam loolu dundut weer te ba tey moo la gën a dal xel yow salarié bi feeku six cent mille sept cent mille neuf cent mille dama mos a dégg Alaaji joblaay mu di leen ñaawal ne wërsëgu tuuti mu ngi em ci xam li ngay am <laughs> mu ne xam li ngay am ci weer wi mu ne loolu wërsëg bi tuuti la parce que doo ñemee laal leneen xoolal mag ñooñu barke boobu noonu daara mayul leen ko lu du doyloo Cheikh Ibrahima Niass topp ko gëm ko bëgg ko jox ko seen lépp jox ko seen i doom jox ko seeni i jox ko seen i mën-mën jox ko seeni i bakkan jox ko seeni i kàttan waaye xëccoowu ñoo moom dara nag moo tax ba bàyyi waxee boppam ne nii mu mel a tax ñu topp ko wax na ñoom tamit lan la ñuy doon bàyyi wax nañu bés bi nit ñi di jamante naan lii ak lii ak lii bi dalaa la nangam sàngam bàyyi na déedéet waqad saana ilahi nafsi dahra la ura amilu ila ma laysa fi shar'i jaiza man maay sëriñ boo xam ne yàllaa sàmm suma bakkan ba jamono di jeex kenn du ma mës a gis ma jeng jëm ci lu sharia nanguwul waaye ñi ma topp nag yàllaa ma leen yónnantaa ma leen tànnal bàyyi wax moo tax ku yebu gor golul ba yonentu boole la ci ñim tan baye wax nafa'ani al-ashrar taha wa saqali lii rijaalu tuqaa wa rusdi wal ilmi wal fawzi bu ma yàqul bayti bi ah baye ko wax ñu ne ko yoy wax ni mu ne salaahu ahbaabi yaluuhu li mubsirin bi taha habibillahi fawzan ala fawzi bu len foo ne dama tan bayti am taha de man dama don wax rek tombe taha ne fi de bàyyi bind baaye fonkoon taaha bàyyi mu ne yónnant dafa fekk sama mbooloo mu ñëw dàq saay-saay yaag ñu bon ña génnee leen moom yónnant ndax moo leen xam ommat jëmee ci man góor ñu ragal yàlla bu waxee loolu nag jigéen ak ñëpp ko bokk ñu am xam-xam ñu jub waaye ñu texe mu ne sell ak samay taalibe ku am bëti xol danga ko gis maa ngi ko jëlee ci barkeb yónnant bi muy texe ci kaw texe yàlla nañu ko yàlla defal xam nga lu tax bàyyi dafa mos a wax ci benn lettre ma tëjee ko mu ne waalamu anni daiman mustaxilun bil amri bil maaruf wa nahyi anil munkari bi lisaani wa xalami wa xawli wa fiali mais mais mais loolu moom rek ko doon def mu ne xam leen ne man sama itte yépp moo nekkoon di digle lu baax di tere lu bon ci ci suma xalimba ci suma làmmeñ ci suma wax ak ci suma jëf gis nga mbir mi euh, di ko sondeel baaxul di aaye nit ñi lu bon te di ko def di te dëggal nit ñi lu baax te te doo ko def mais yow sondeel nga yaa ngi lakk sa bopp bàyyi mu ne moom da doon digle lu baax ci làmmiñam ci biram ci waxam ak ci jëfam mu ne mësta jëmee nit ñi lu dul ci ragal yàlla ci li nëbb ak li feeñ ak jàng alquran ak liggéey ci sàkku alel ju dagan ak it di dem di daje ca jàkka di julli waxtu yi juróom di wasifa di tudd yàlla ci li nëbb ak li feeñ mu ne koo xam ne nga suma ndigal yooyu doo itteewoo lu dul lii ma wax waaye koo xam ne itteewoo loolu ma wax nag man de yoruma jaasi yoruma jaasi mooy yoruma àtte di dóore wala may tëje wala di leen waa mu ne ab yonant daal jota la ko war mu indi alquran yàlla ne yow waroo leen forcer defal liñ la sant rek nga dem sa yoon yàlla ne e, fàttalil ndax yow fàttalikat nga waaye nekkul nag da leen war a contrôler yàlla ay gis-gisi xol dikkal na leen jóge ci seen borom ku gis boppam lay ñeexal waaye ku gumbo nag sa kaw lay tees waaye yow nekkul yaa leen di wut moo tax bàyyi ne li xew kay man day wax dëgg yàlla dinaa gën a tàllal gën a yokk suma itte ci laaxe biir koo xam ne dina dégg sama laaxe biir ci jaami yàlla yi waaye ñi nga xam ne nag dañ may déglu te su ma diglee ñu def doo mus a gis ci ñoom lu gërëm loowut yàlla ak yónnant bi mag ñaango xoolal niñ niñ niñ nekkee woon sookoon xoolal niñ téye woon sookoon jàmm ji fi nekkoon xoolal niñ amee woon fulla ba xam nga am na jamono <laughs> léegi la ñuy toog fi waaw taalibi bàyyi taalibi bàyyi bàyyi bàyyi dama dem benn dëkk bu ñuy wax euh, Vélingara sëriñ bi xam nga dama sob ba pare kama fa yóbbu gën may sop mu Cheikh Ousmane Diaw ndeket dëkk ba ñaari at ci gannaaw sax ku fa woon bàyyi ñes rek kurpeñ ya tàkk am na ñu ma àndaloon xëy na ñu ngi ci mbooloo mi ah Ibrahima ngi nii kañu dalal mu ne fii ku fi tuddoon bàyyi rek ñu dóor la neel bàyyi rek boo buggee sa yaram yu tàng neel bàyyi rek ma dem ñu di ma fa conférence loolu ci faydu xam nga koo ñu dóor ma la bëggoon waaye ba ma ba eggal dara xewut ma ne ah Ibnu Arabi Xaatimi waxoon na ca futuhatul makkiya law qultu ana allahu xalla dimauna aqulu ana allahu wallahu qaadiru su ma waxee ne maay yàlla ñu rey ma waaye bés a ngi ñëw dinañ wax ne maay yàlla parce que yàllaay wax ne maay yàlla te yàlla kenn du ko rey loolu egsi wuñ ci noonu la mag ñi ànde woon ak bàyyi salaamaaleykum wa rahmatullah